mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli séeréent bi ñu ngi gërëm promoteur bi bu baax a baax di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm ci làmb ji mu jëm di ñaanal réew mi jàmm waaye si da bu ngor nuyul say mbokk nuyul mbokk yaatuna bu ko defee kenn ku ci ne am nga question boo war a joxe waaw di wane salaamaaleykum auzu billah bismillah inna wa rawatina ngor Yoff maa leen di sant di leen gërëm rawatina booy asukoo ñëpp waa booy faaseek yëpp te bëgg ñëw fii ngir Siteu jaamagat foo mënta jóge banlieue bi fépp Siteu mu lay sant di la gërëm Ndakaaru fépp waaw Siteu du Siteu ngor Siteu àdduna la du ngor Siteu àdduna waaw kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne aw fay waaw di di na ñëpp a ñibbi waa si jàmm rek ni ñëwee si jàmm na ko ñëpp a ñibbi waa dee si jàmm waaw buñ jël alalu kenn buñ tooñ kenn buñ yàq abagaasu kenn na ñibbi si jàmm waaw ñu waajal samedi incha ñu dem jëli ko ñëwaat incha allahu rabbi waaw. jërëjëf Ousseyn Siteu ñoo ngi lay nuyu dañoo dégg démb Alioune Seye nee na amoo respect te yow ndax nga dégg wax jooju moom la def. waaw maa ngi koy dégg mu ne man maa saaga bu dee man dama kaa saaga mu ne li TV la bu dee kaa saaga yaa nga am ndam sama kaw man du ma saaga kenn man samay morom yi ma àndal saaga sax dama la doomu jàmbur boo xamante ne man ak moom waaw bu dee damaa jàppal dara tamit man xale laa rek bu may yàqal sama carrière bu ma jaxasee doomu aadama yi xam nga man xale laa am lu ma bëgg def si làmb am lu ma bëgg a indi sama gox fii ñu koy nooy si làmb man roi des arènes laa bëgg a jëli nee na bëri naa mbër bu nekk bëri naa mbër bu nekk te yow benn yàq nga benn yàq jaaxalu ko ma tuddee la neen loolu yaa danaa ko moom dama koy waaw bu soobee yàlla mi may ndam man maay def lépp waaw instant bi wax bi yëpp jaratu ko lamba ji boo seetloo lépp man maa ko jaay lamba ji man maa ko jaay woo na ñu signature woowaat ñu woowaat ñu benn yoon ñëwul kon lamba ji lépp maa ko jaay moom bu gore woon rek damay sant gërëm ma quoi mais kon de noonu la ko gisee magum jëmm buy demee bay daanaka a baax di wax ne ñu ngi woo ñëpp si jàmm encore tamit. mais Siteu dañ la gis nga voyagé bi nga demee ñu gis la ak nga yokk maas mais bi nga ñibbisee dafa mel ni da nga wàññi maas bu bari Alioune Seye ñu gis ko mu gis la moo tax nga ba ñëw di wàññi. waaw du dara loolu liggéey ak suñuy kilifa ñun dañuy liggéey loolu ñëw ñu ne lii nii ak nii ak nii ñu ànd seeg ñoom liggéey si bu baax a baax te ñun seen ndigal la ñuy topp toppaatuñu leneen loolu ñoom waaw ñoom bu nañu lii la loolu la bu nañu lii la la waaw. Siteu Siteu adversaire bi nga am par rapport ak yeneen adversaire yi nga amoon par rapport ak adversaire yi nga mujjee bëri te mu jiitu la ci làmb mu jiite la ci lam nan nga doon fas yéene bëri moom. waaw bëri xale rek moom mu indi bëri mag man ma indi bëri xale rek soobee yàlla quoi incha allah. ñu gisee combat bi da nga cee bëgg xeex xeex bi. non du dara xeex bi sax. fii di la wax na man nii laa bëree kon bi jóg naan kii dof la quoi loolu man ak samay kilifa la ñoom bu ne ma xeexal ma xeex bu ne ma bëreel ma bëreel ñoom laay déglu lépp waaw man fi ma gis. Siteu bu ñu la lee xeex di nga jàkkaarloo Alioune Seye dem ak moom. fitu ñan ngor. fitu ngor gi mën naa ko téye dem ak moom te xajul si Aliou Seye soobe yàlla yaa Aliou Seye ñun bu ñu dalee si kawam. Aliou la de. waaw man lan laa waxal wax ma man la wax. waaw wax ma man li ma doon. mais xam naa la laa la wax. waaw gaynde ki ngay bëreel. gaynde gu màgget la man gaynde xale nii damay fàgg. nga de. damay fàttu. mais ñu gis la di combat bi taxawee ak léegi yéen ñaa jàkkaarloo jàkkaarloo bu leen est ce que loolu du wàññi dara ci làmb ji. non loolu yëf yi boppam la nee la ko jaay man maa ngi génn di communiquer pour jaay bés bi man sama làmb événement laa koy def waaw xaw ma ndax lu ko teel yàlla na nekk jàmm waaw bu baax. mais ñu gis tey ni nga def saaf bi lan lañ mën a xaar. dañuy doog sëriñ sëriñ samedi incha du dara lii nii yëg-yëg la rek yëg doomu aadama yi la rek ñoom tamit ñu delloo la ko cër bi lépp koo romb jox ko cër bi mu moom quoi xam nga ñi aw ma seen fay parce Seydina Muhammad dañuy rus naa ñoom instant di ñibbeeg la ne la dul ndam billaay wallaay talaay bakken si biir géew laay indi soo sëriñ sëriñ ak respect bi nga xamante ne sa ay mag allah ñu lay ñaanal nga si sax mais Siteu dama jël combat bu neex combat bi nga xamante sa combat bi nga xamante yaakaar naa moo ubbi sa porte si buntu làmb nga xamante ni lu expérience la def nekk si làmb wax na ko dem si point de presse ne nga bëri nag ay ndaanam yi nga xamante xalaatoo bëri ak ñooñu tey tukki woon génn Sénégal dem ci doole ñëwaat ku la xool xam ne liggéey ñëw bëree nee la man xale laa ba léegi damay jàng manuma dara mais am naa lu xamante ne daan na ko dul Aliou Seye te bu soobee yàlla ñu ñaan yàlla suturaal ñu rek instant yi wàññi amatul yàlla suturaal ñu loolu kase kase la di sant xam nga sama booy may àndal. làmb ji yàgg na quoi. Ah, su ñu waxantee dëgg rek. yàgg na mu metti woon trop mu metti nag may gis ñi may gis gis naa ñëpp nag mais metti woon na quoi mais ñoom depuis mu taxaw ba léegi wallaahi compte banque lañ ubbi compte banque lañ ubbi yor seen carte chaque mois ku nekk di dugal xaalisam waa Ngor moo tax ma am sañ-sañ tey jënd 30 bolok billet. kon jënd nga yow 30 bolok. 30 bolok bu dul woon sama booy may àndal ak jigéen ñi ñi xamante ne ñooy léppay sitaak booy may àndal depuis xale ba léegi bu dul woon ñoom aw ma sañ-sañ def loolu kon dama leen di sant di leen gërëm su ma su sama mission la dox kon man li ma leen mën a fayee mooy am ndam kullu Ngor waa kullu kuy bëgg si te Ngor Yoff Wakaam Almadies Traoré Derklé Fass banlieue bi ñëpp jaama ben fépp dañuy sonal si man quoi te defalu ma leen dara du fukki dërëm du cent franc ñoom ñoo gis dara si man rek mais dañu ñaan yàlla suturaa ñu bés bi bu ñu yàlla suturaalee ya dinañ tam sita laneen sita xam nga làmb ji ngay bëri làmb ji may bëri xam naa ko rek xam nga li nekk sa ginnaaw li nekk sama ginnaaw xam naa ko bu baax moo tax caaxaan waruma